voilà restreindre internet moom mën nañ koo def ci benn contexte ci benn période de courte durée ça peut être important pour le pays voilà par contre affaire Walfadjri bi moom man ànduma ci parce que li tax ànduma ci mooy majorité acteurs politiques yi fi nekk yëpp damay wax sama aqulaay taala ñun ñëpp Walfadjri lañ doon dem dafa def émission kenn ko amoon looy jàmbat ci réew mi y compris man ak keneen ak keneen fa nga daan dem ñu ubbil la sa turbine nga wax ba xaabaabal wax li la neex te terewul pourtant mi nga doon wax même ligne éditoriale bi la. donc c' est pas parce que nekk nañ ci contexte boo xamante ni nii nit ñi ñu ngi wax ay affaire u violence ak yooyu mais dañ leen suspendre mais quant à aller jusqu'à retirer la licence de cette chaine de télévision moi je pense que loolu c' est exagéré te njiitu réew mi lay lancer message moom mi nga xamante ne nii contexte bi gis na ni contexte bu tendu la moom mi nga xamante ne nii gis na ni dafa woote dialogue moom mi nga xamante ni day woo Sénégal yi daje réconciliation nationale am nu mu gën a gaawee ñoo ñu leen delloo seen licence parce que aussi entité la boo xamante ni am na ligne éditoriale am tey boo demee ci site internet yi am na ñoo xamante ni site satirique la lu leen neex la ñuy wax lu leen la ñuy bind ainsi de suite te Walfadjri moom nekk na patrimoine boo xamante ni sénégalais bu ne gis nga ci sa bopp en tout cas man gisoon naa ci sama bopp kon tey c'est hors de question wala c'est anormal que ñuy jël seen licence pour man mën nañ suspendre rek bu ñu suspendre rek après un certain temps fekk affaire bi daal ñu delloo leen seen licence je pense que njiitu réew mi moom mi woote dialogue maa ngi message lancé ñu nañu dimbali ba Walfadjri ñu delloowaat ko licence am pour parce que loolu dafa bokk aussi ci jàmmi réew mi gis nga Sénégal ma xamal la ñaar yi du fi jóg doo woote dialogue ba ñëpp ñëw woote dialogue ba ñëpp ñëw du fi am 2018 2019 2018 bi ñu wootee dialogue PDS ñëwul Pastef ñëwoon na ex Pastef du dëgg 2019 après élection présidentielle bi bu ñu wootee dialogue nit ñi am na ñu ñëw am na ñu ñëwul 2023 bi ci dialogue bi ñu jógee PDS ñëw na. Khalifa Sall ñëw na mais bu ñu wootee beneen dialogue si tey Hadjibou Soumaré nee na day ñëw <laughs> Boubacar Camara nee na day ñëw dana am acteurs yu ñëw dana am acteurs yu ñëw la muy benn voilà Mohamed Boun Abdallah Ali Ngouille ak ñeneen ak ñeneen kon heure boo fi wootee dialogue mënoo fee woote dialogue ba ñëpp ñëw maintenant principe bu dialogue bi war nañ koo revoir mooy ni ñuy dialoguer le format war nañ koo revoir. lan lan lan moo war a wund woon dialogue boobu. dialogue bi li ko war a wund mooy ñu corriger yi am. wax naa fi ñetti problème yoo xam il faut ñu réglé ko parrainage citoyen mënul continuer même buñ nee dañ koy réajuster aussi mënul dem am na am na durée de vie boo xam ne bu fa àggee du demati parce que duñ amati discriminant muy benn deuxièmement question technique yi ñu génne ko conseil constitutionnel ñoom lii seen rôle lii seen mission ñu bàyyee leen ko parrainage mu am benn commission même bu doon ne day autonome chargé de de contrôler le parrainage ñu gérer ko ba pare ku fa jàll ñu bindal la attestation attestation boobu nga ñëw indi ko conseil constitutionnel. deux troisièmement conseil constitutionnel il faut ñu réviser ko réclamation ñu permettre à ce que citoyen sénégalais bu nekk mën na def réclamation conseil constitutionnel boo gisee ci liste bi candidat boo xam leer la yow kii double nationalité la am mais lan mooy nga gis ci liste koo xam ne am na ay plusieurs nationalités nga nekk sénégalais amoo possibilité dem xeex ko te pourtant conseil constitution bi dan il faut être exclusivement nationalité sénégalaise muy benn beneen bi mooy conseil constitutionnel aussi ñoom ni ñuy liggéey nga xamante ne ay question de droit ay question dañuy xool texte yi xool carte électoral xool constitution ñu jàll mais bu fekkente ne nii recours am na parce que nit day juum manquement ñu def benn délai ci calendrier bi électoral ci processus bi de telle sorte que délé boobu war nañ mën a may ñi def recours ñi def recours parce que bu fekkente ni toujours dañ koy fermer ça veut dire que à ce moment toujours mën naa am kuñ génne par injustice mën naa am kuñ ajouté te ñu ko woon ajouté mais bu délai yooyu amoon tey nit peut-être mën na ni diwkat gis naa ko jàll na ci liste définitive bi alors que am na double nationalité